n'est-ce pas Mamadou Ndiaye beaucoup de questions ak ay commentaires. beaucoup de questions commentaires yi bëri na ci euh, waxtaan bu am solo bi nga xam ñu koy def ak euh, Gorgui Sy Dieng. Mm-hmm. mais fi mu daanalee xam lu bëree bëri. pourquoi choix euh, San lu tax nga choisir les les ce que amul woon yeneen équipe yi nga xam ñu ngi la doon laaj yu si mel ni exemple yi ñu joxe comme Miami. les Spurs de San Anto San San Antonio. <laughs> waaw xam nga. choix bi lu ko indi mooy tey ku ne danañ la boo nekkee free agent maanaam boo nekkee joueur bu libre mhm. ku ne danañ la woon la soxla naa la mhm. waaye lii laa lay doyee mhm. xam nga yow yaay déglu xam fan la sa fan nga nar a ëppee temps de jeu fan la say chance ëppee pour nga pour nga mën a nekk foofu euh, for long période dafa am ay enjeux yu bari yoo xam ni di yow jour bi yaa koy décider sa agent bu nga xam ne moo nekk foofu moom moo la mën a wax ni la yaakaar naa ne lii moo gën si yow defal li defal la mais ma delluwaat si li ma la waxoon rek nit bu amul kilifa du mën a sori ci dara donc man sama agent bi nga xam ne Jason Reen yi moom moo xam yàgg na NBA représenté na joueurs yu bari donc li nga xam ni loolu la may wax si loolu laa mën a topp mais ça veut pas damay gëmm rek di dem man tamit mhm. danaa def su may gëstu bopp xool tamit lii ak lii lan mooy kii moo woo yi woo tamit ma déglu leen ñu wax ma ni ma ah ñun soxla nañ la si lii lan la bëggee lii lañ bëgg nga def lii ak lii la léegi après man maay choisir mais amoon na équipe yu bari yoo xam ni taxawoon nañ pour. contacter woon nañ voilà waaw waaw peut-être que euh, dégg la ci équipe yu gën a siiw ah. Euh, même si Anto San San Antonio. j'arrive pas à bi mais lu yàgg la lu mag la foofu ci euh, ci américain yi. gis nga Pape Cheikh man dëgg rek laa lay wax. Mhm. ma nekk si télé ma toog suma biir kër ak fu ma mënti toog. Mm-hmm. dëgg laa lay wax. Mm-hmm. équipe bu siiw yóbbu ma Amérique. Mm-hmm. lu ma am laa fay wut. xam nga. gagné sama vie laa bëgg. su ma paree ñëw toog fii toog fii télé la seetaan. mais ñun supporters yi quoi ñooy wax loolu. ñun supporters ah, ñun en tant que supporter voilà dañuy bëgg yooyu. voilà seen yéene seen yéene waaw dégg ma dama ah. waaw léegi même yeggale comme foofu nga wax ah. yaakaar naa loolu chance la. NBA du yow yaa yóbbu sa bopp fu la neex. Mhm. tey mun naa nekk si benn équipe da gis suba nga joué ba février ñu la ah yow jaay nañ la yóbbu na la benn équipe ngay jooy. Mhm, mhm. parce que say doom ñu ngi école di jàng. yow yaa ngi foofu nga war a déplacé wu nga war a déménagé wu. dem beneen dëkk dem beneen dëkk. xam nga man samay doom amuñu xarit. fu ñu dem ba miin rek. nga jëlee leen fa dem yàlla xam na ni ma demee Memphis bi pas mhm. sama bagage dama koo teg ci kees toog di xaar parce que damaa sonn ci yóbbu indi yóbbu indi damaa takk yëpp si kees billaahi takk lépp si kees toog di xaar ma ne su ma joué ba si diggante bi rek lu xew rek mhm. man ma dem léegi noonu laa ko jàppoo sama kër amatul ay décoration amul dara le strict minimum laay def dinaa dinaa def lal bi teg teg living room bi. Mhm. xam nga def loolu léegi. bu dem jotee rek ngeen takk takk jóg takk jóg waaw <laughs> bu ne aja rek ma dem. ngeen takk jóg quoi. parce que loolu loolu la. loolu loolu mooy dundu dundu sportif. <laughs> sportif en activité surtout boo nekkee ci haut niveau loolu mooy sa dund moom da ngay jël valise rek teg ah est est man profane la question profane lay posé mm-hmm. est-ce que tey jii mën nañ xaar mu génn États-Unis dem ci beneen continent defi basket exactement loolu moo nekkoon beneen question bi ah, ah, na ko ko laajte voilà loolu moo nekkoon beneen question bi est-ce que mën nañ dem choisir Europe surtout <laughs> yéen kay ñaan leen jàmm rek <laughs> dëgg yàlla nga naan yàlla def man foofu laa xam ah, jàmm ji mooy nga toog NBA waaw xam bu caaxaan jeexee rek dëgg des euh, lu ñu joué duñ ko joué xam nga lu ñu joué si si NBA bi duñ ko joué waat yaakaar naa amatuma dara lu may lu may perte si si bi xam nga def naa sama temps gagné naa si lu ma si gagné leneen lu ma si am bonus la xam nga mais ça veut pas dire que ni damay damay relâché wu toog de seetaan waaye man danaa liggéey lépp lu ma war a def ma koy def mais tey fu ma yem ma xam ni lii la yàlla dogal ndax Kébémer laa jóge euh, bu may ñëw di kii tout le temps dama koy tooñee sama gars ma ne bu may commencé basket vingt deux mille population vingt deux mille personnes la woon. Mm-hmm. mooy suñu suñu suñu suñu stade bu feesee vingt deux mille personnes lay def. Mm-hmm. donc tey am na yoo xam ne xew na si man ba nga xam ne lu mën a xew ci man tamit. Mm-hmm. bon ma koy sant yàlla quoi wees naa fu may jàmbatee wala may. de Kébémer à la NBA quand ah, ah sant yàlla quoi doy yàlla dëgg yàlla doy na sant yàlla quoi maa ngi maa ngi relation boobu maa ngi ko di liggéey di mm. góorgóorlu mais. lu mën a xew moo xam ne moo xew mhm. des koy def it's for the business side mhm. tey mun naa tey dem ba nga xam ni bëgg naa ah, dem ma ne ah tey léegi dama bëgg a a jàng français wala dama bëgg a jàng lii ma dem France man ma nekk foofu. parce que xam nga dañuy toog ba dem Qatar dem Dubai di ñu dem Chine. it's for business ah. laay nekkatul nekkatul xaalis moo tax. Mm. nekkatul xaalis moo tax ñuy. wër di basket. oui naa ci weewu ak dëkku naar yi toujours plan B la pour sportif yi ah. <laughs> voilà voilà ah, c'est am am relation xam nga. Mm, mm. tey des fois bu ma demee ma nga xam tey bëgg naa bàyyi mun naa ne ah, damay dem dëkk bi parce que dama bëgg a jàng langue bi. Mm, wala dama bëgg a dem France ma jàng français. wala man dama bëgg dem Chine ma jàng chinois. mun na nekk côté business wala affaire yooyu comprendre nga. loolu rek moo tax euh, kii affaire NBA moom yaakaar naa su ma fa paree pare naa. loolu laa yaakaar. Hmm. waaw donc Pape Djibril Sakho mi na lañtu benn. internaute on retrouve beneen internaute pour beneen question. voilà beneen question bu bu am solo surtout équipe nationale la concerné moom bi mu ñëwee équipe nationale 2015 la donte xaar nañ ko lu yàgg. bi mu drafté ba quinze mu ñëw équipe nationale équipe nationale ba léegi 2015 ak léegi yàggul. Euh, def nga fi tournoi yu am solo 2015 bi d'ailleurs euh, bokk nga ci cinq meilleurs joueurs africains yi ci afrobasket bi sa rêve à chaque fois da koy wax ci interview interview boo euh, boo ti def da nga naan sa rêve mooy gagner dara ak équipe nationale bu Sénégal ñi ngi préparer afrobasket mois d'août bii ñu jëm lan moo nar a nekk est-ce ci xaar d'ailleurs Gorgui Sy Dieng ndax gëj nga ci sélection bi est-ce que ñi di nga ñëw est-ce que boo ñëwee tamit di nga gën a renforcer équipe bi li nga yi ciy bañ yi am ci football bi toujours parfois ay guerre dina ci am est-ce que yooyu yëpp dinañ ko mën a teg ci teg ci suuf ngir mën a gagner trophée bi nga xam ne moom la ñuy xaar gëj ko am. waaw xam nga ah, question bi gudd na mais li ma si jàpp dinaa ko si tontu. xam nga ah, man moom xam nga équipe nationale priorité la mos nekk si man. ñëw même bu nga xamee ne année bi may préparer sama contrat dama ñëw ma jouer te mënoon na ma si bañ a fekk jël ay risques yu mag. ñëw jouer ak équipe nationale sama priorité la deuxième chose bi mooy euh, waxuma sax équipe nationale man kenn dama dul dégg si ay coow ak ay détails parce que yaakaar naa ni euh, bu fekkee da ngay yéeg ku laal sa tànk nga wàcc ni ko tànk laal sama tànk da nga yeex yegg fu nga jëm xam nga euh, man duma ma nitu détail du ma wax ay ay ay wax yu sew ak yooyu du man lépp loo lu ma war a wax dinaa ko wax lu ma war a def dinaa ko def te wax naa ko sànq ma ni lu may def équipe nationale yàlla naa gis ñeneen ñu ko mën mm-hmm. ma ñëw leen kaale ma topp seen gannaaw mais mm-hmm. waxuma kenn ni man maa jiite tamit xam nga when you lead it's important you lead by example maanaam jaru ma naa la Pape Cheikh lii laa bëgg nga def yow boo xoolee li may def da nga rus sama gannaaw mm-hmm. man bu équipe nationale yi ma ñëw yëpp su ma nekkul meilleur marqueur si Coupe d'Afrique bi nekk ma meilleur rebondeur wala xam nga trophée individuel yi nga xam ne dañ ko jël foofu yëpp jël naa ko si Afrique bi xam nga lan moo ma dese Coupe d'Afrique kon li laa war a suuli bu ma demee ma xam loolu moom ma ñor pour ma mën a ñëw maag Pape Djibril bokk équipe ma koy ma koy indi histoire ak moom man de man maa war a dajale waruma tasaare parce que man maa soxla xam nga xëy na Pape Djibril am na temps xaaraat xaaraat xaaraat pour gagner mais yaakaar naa bi mooy sama yàlla moo xam mais yaakaar naa bi mooy mujj parce que jouer Afrique dafa métti. arbitre dana la fii du NBA. arbitre arbitre la ko ko difficulté ak arbitre yi NBA seetaan faute yi ak affaire yooyu waaye. Ah. <laughs> arbitre la koy wax. Ah eh, nga def nga. mais xanaa règle du règle universelle. suñu tiire woon ay faute moom da dem kaas. te loolu moo ko tiire faute mm-hmm. mais en Afrique bokkul c'est pas ah la même chose. yi bokkul. ci Afrique. si si bokkul de. yow rabe la quoi. bokkul. ak tamit le coach bu bees bi Boniface. dégg naa tamit ci biir rapport yi ak yenn zone. Mm-hmm, mm-hmm. ah, kon merci. oui merci <laughs> ba xam ndax day bokk day dem ci euh, Coupe d'Afrique. Coupe d'Afrique bi waaw waxoon naa la question yi dafa bari. naa dem man bëgg naa dem incha allah am naa yéene merci merci am naa yéene dem xam nga moom Sénégal loo fi wax day leer. Mm-hmm. loo fi def it na Sénégal bala ngaa wax na téye ba pare na def yëf yi. xam nga Olof mm-hmm. Njaay nee na bu la bu la kii ne nañ sànnante xeer mm-hmm. daa fekk ni joggi na si xeer ba noppi mm-hmm. <laughs> Sénégal bala ngay wax dara day nga téye ko ba mu wóor nit ñi du ñu xool jëf gi dañuy xool li nga deful la jox boobu ah gars yi maa nga dégg olof sànni xeer <laughs> rek da ngay da wax da ngay téye ba pare wax ni lii dinaa ko def fekk ni yow téye nga ko ba noppi dëkk bi noonu ngay doxee moo tax man tamit am naa yéene bi def ko. Mhm. su amee ah yàlla baax na su amul yàlla yàlla may ndam. donc merci. <laughs>